bii dafa am. non bii moom beneen affaire la da nga war a doser paase. waaw mais yow da ngaa war a. waaw waaw kii kii kii dañ koy topp. da ngaa war a jëfoo <laughs> ah, mi ngi noonu. mu ne sa sikki bi dafa xas. ah <laughs> non maa ngi ci nuyuwaale waa ASCOS. ngeen sa tànk yi. <laughs> Fatou Wade maa ngi lay nuyu si rafet da ngaa jógee. oui yooyu. ñun ñëpp am nañ ku ñu war a nuyu bàyyi yooyu. dégg nga Mounas ñoo ah ci la bokk. mu dikk mu ne sëy bi à distance. Ah. li ko yëngal. waaw. nga dem. doon immigré daani sa doole ñaari wet yëpp dafay am. am na foofu sikk naa góor ga. ndax day dem rek nekk ci donc ak jotaayu tarangam yal na ko yàlla ubbil buntu wërsëg ak buntu mhm. baabul xëy mhm. na. Ah, jigéen ña dar ko. time is money. jigéen ña dar ko te foofu nee nañu dafa neex a toppee sa bakkan mhm. lool. rawatina su la yàlla ubbilee buntu baabul xëyri mhm. kooku sa kër su tasee ngir ne danga koo sàggane yedduma jigéen ja jigéen ja laa àndal ndax yaa nga ca la la neex sunu borom ubbil na la buntu wërsëg te tamit foofa dara du fa umpee mhm. fii ni ñuy toogee fii ba sàgg wax la fa loo xam ne dina jàngane nga ne ko may naa la sabaat mhm. noonu na ñuy toogee ba sàgg ñu ne ko diw te dëkk sàngam nangam la fa nekkee dëgg la lu xew Espagne lu xew Italie lu xew beneenu dëkk. sénégalais yi fa bëri. sénégalais yi bëri fa. yendu si na fii. kaay moo tax foofa ku fa nekk na nga xam bu baax li ngay wax ak doomu aadama yi wala bala ngay yëkkat sa làmmiñ bay xas kenn wala bala ngay yëkkat sa kenn la nga nekkee foofu su dee fii la xam nañ ko. Mm-hmm. lanu xam sax moo ëpp. Mm-hmm. ndax foofu lu fa xëy ñëw yendu fii. Mm-hmm. am fa ñoo xam ne topp nañ seen bakkan topp jigéen ñi amul ko la naan déet. kenn du atte fu la neex fanaan fu la neex yendu sa soxna nekk fii di ko dégg sa kër su tasee yow yaa ko tas. dëgg la. mën ngaa toll foofu di wut amagoo. Mhm. wala nga dem rek nekk ci tolof tolof. Mhm. sunu borom def nga nekk ci loxol buur am na te doo sàcc doo fen doo def dara. nga dem rek dara am rek xamoo fa dara ak daqaar nga buur dal sa kaw nu jàpp la te fekk ne doonoo ca dara lu ndaw nan la jàppee. nga nekk ci biir kaso bi ñaari ak ñetti at. kooku soo dajewul ak jigéen joo xam ne xam na li xew ba nu informé ko nangam ak nangam la nekkee foofa dëfal ko nekkoo ci jigéen joo xam ne encadrement baax na encadrement ba ña ko ëmb baax na mën ngaa ñàkk soxna comme na ngay nekkee foofa ñuy taxaw di la wax naan la ndaw si bërëb sàngam la nekkoon am ci ñoo xam ne ñu mën a fen nanu léeg-léeg nu ne seen borom kër nangam ak nangam doxe nangam nu yónnee leen ab xaalis nu jël xaalis boobu demee ko xew jigéen gis la fa ñee la filme la yónnee ko sa borom kër day am jigéen ñu bari def leen attention de seeni borom kër ak technologie bii ni mu évaluer actuellement am na ci ñoo xam ne seeni borom kër am na seeni image yoo xam ne su suñu waxee su suñu weddee ñu tegal leen ko de te yéen gi fii ci réew bi ñoom ña ca kaw na ngeen teey bu baax xam fi ngeen di dugg saay saay sax mën ngaa xuloog moom mu fexe ba firnde la ci lëf loo xam ne ëlbati ko dem daal di koy yóbbu envoyé ko sa boroom kër li boo gaa wax nag dafa am pat noppi dama ne waxuma ñun nitu ordinaire yi mais ab sëriñ sax su dul jéllale hmm. du feneti ah. du jéggale ah. daaraam day tas maa la wax lii de sa wax nga am ñett ñii dinga nga am wuyu di am ab dof di nga am ku yiwa yiwa yiwa yiwa koo xam ne mën naa waxtaan ak ku ne ci këru àdduna koo xam ne ku ne yurub ci kër gi ne salaamaaleykum moo koy dogaale wax kuy sëñ bi fan la sëñ bi jaar nu sëñ bi nekkee lan la sunu borom def ci moom ak lan mooy carrière am ba tax na yow doo yàkkam dara dul egg ci sëñ bi kooku ab sëriñ war na koo am. ab sëriñ war naa am wuyu woo xam ne su xeex jotee mooy futteeku ndax am na ñoo xam ne suñu noon kii sëtub rasulilah alayhi salaatu wa salaam mu toog nii. rasulilah toog nii ñeme na noo ñaaj ñëw toroxal ko am na ñoo xam ne sax sib sëriñ wala kilifa na nu gën a aaji doon koy toroxal. doonu jéem a toroxal wala xeeb ko wala sobental ko wala wax ko loo xam ne sax mën na koo doyadil. am na ñu bon ñu iñaan ñoo xam ne fu ñu fekk kilifa jëm koo toroxal su boobaa nag xeex day jot nee nan su boobaa foofa wuyu dafay baax day laaj mu jóg taxaw saafonte ba nu xam ne fii muus du fi naan ñeex dëgg la Fall ñu ne ak lan ñu ne nag mu des benn mooy dof bi ak sëriñ war na koo am ndax am na ci ay jëmm yoo xam ne ñu ngi ci biir kër yi nekk ci kër sëriñ si bu boone ay taalibe nanu lu leen neex def ci biir kër sëñ si sën bi da koy xam waaye am na yoo xam ne du rotee ci làmmiñu sëriñ ndax su ci rotee rek ñépp ne sëñ bi nan la mën a waxee nii daal di bàyyi lanu def ñoom sëñ bi day noppi rek mm. neppata rek te fekk ne lu xew ci këram moom sëñ bi xam na ko la wax baax na ci moom mu am ak dof boo xam ne léeg-léeg mu ne ba xam ne ne daal nit daal ne diw nangam ak nangam ak nangam li nga nekkee nangam ak nangam su ko defee nit ñi sàccu ku nekk daw dugg sa kees daal di tëju daal di fàttu ne lu mu wax ni ñu ne ab dof la te fekk sëñ bi bëggoon na ko ko ko waxal mhm. waaye amul bunt mhm. moo tax nii dafa wax ci kër nit day tan xamlu day jëlale mhm. di nga gis di fenati di fenati te fekk la nga xam sax maara day taali te fekk wenn dungu moo la tee naaw ndax xam nga xam lépp xam lépp lépp ne patak moom na la kilifa di ah. bul wax de soo waxee di bañ a teel a tëj sa kër huit heures ne sama caabi maa moom kër gi sama kër waxuma huit heures mais ba pare nga jox ko fi exemple yëpp. sept heures dinaa ko tëj waaw ba pare nga jox ko fi exemple yëpp. waaw sa kër da nga koy tëj sept heures. ah léegi bokkul ak lii de bokkul ak li ma la wax de. sa doom bu fa nekkee ak jëkkëram nga ne da nga koy tëj. na génn dem yoon. na génn dem yoon. waaw doo ko jox caabi. ban caabi laay joxe sama kër. ay yow su ma indilee musiba mais caabi force la papa toogal li nga xam ne yaa ngi fekk daa fekk amoo doom bu góor bu ci toog. bépp kilifa boo xam ne jël nga caabi jox sa goro wala nga jox dara mu dem te yow xamoo jikkoom munoo koo topp mënoo fu mu ne nga ne fa ah, mënoo soppaliku ndew ruuru ba fu mu dëgg ab tànkam nga dëgg fa te yàqu dafa yomb su nu dugalee sa kër dara wala nu xëy daal lay fëgg nga jóg nu yeew génnee mais yow père dégg nga li ngay wax yow d'accord bul ne fooguma ko woon <laughs> d'accord euh, sa caabi sa caabi sa caabi sa caabi ah ma ne benn lu mu bëgg wax ci li nga ah moo xam na wax lu ko neex man l'essentiel fi ma taxaw dëgër na mais sa caabi yaa moom yow man dinaa yow yaa ko moom ak jabaram nekk sama kër ma ne dama leen di tëj ni ay sept heures ba ma leen di tëj du leen jox caabi su ma léegoo ba kenn du ma fëgg ak jabaram su ma léegoo kenn du ma fëgg mais fëgguñu la dañuy ubbi seen bunt dama ne kenn du ubbi sama kër yenn waxtu yi d'accord mais moom mais mais moom moom gërëm. moom sama kër mais moom moom gërëm. demal ah. saw yoon. Ah, ba demal gërëmal. non non du thème bi sax mais yéen li ngeen wax c'est grave. demal yéen defuñu fi thème ñu ne dëkk papa dafa baax. dëkk waaw yow di nga am sa jabar. waaw dëkk sa baay nekk adulte. waaw bëgg a génn ak sa jabar yéen. ba léegi am na ñu ne doo fa ñëw ñoo xam ne doo fa ñëw dugg. suñu duggee ba fatu jeex na. du ma dëkk ak sama papa foofu. looy dox. sama jabar man man sama jabar moo dox. ah fu ma amee soxla da ngay lekk yàpp délire yi nga am ak moom délire yi ma am bokkul. da ngay lekk yàpp non yow délire yi nga am da ngay lekk yàpp damay lekk yàpp damay dem restaurant damay lekk glace waaw léegi léegi yow demal man mbaxalum mërëg bu neex a neex waaye sama kër daal sama kër du këru pëttoo këru pëttoo déedéet <laughs> man ko dégg la sa fiyaat man loolu ma tollal ay bëñam baaxul waaw waaw xale bu la neexee génn ah waaw sama kër sama kër du kër du kër pëttoo xam ne dama ne sama maam su ma sàllee mu jeex na kenn ci am sama su ma sàllee mu jeex na mhm. tout à euh, bi yombut de li nga wax noonu mhm. effectivement man damay wax ne ci sama expérience bu gàtt képp ku yàlla boole ngay sëy mhm. ñoo ñoo gën a metti la sëy koo gis mooy sëy à distance. Mm-hmm. neexut. maintenant euh, pourquoi. Mm-hmm. parce que contrairement à ce que tu as dit père. Mm-hmm. bitim réew. jigéen yomb fa comme noonu ngay waxee nii de. Ah, am na fa de. non waxuma ne amul amul fu jigéen amul ci àdduna. am na boo demee boo demee boo demee parc Jokalante ba sax am na ay gaynde yu jigéen. ma dégg rek la ci am dégg. exactement. la ma xam Amérique waa Amérique nee ma bët waa xamu ko. teewul soo faa dem. ma xam waa Amérique. dama ne waa Atlanta ñoom Mamadou Lamine nee na ma bët waa xamu 27 ans ya mu def États-Unis ah, dama ne ah, ah, dox bu gàtt. demu fa dox bu gàtt. xanaa téléphone fa demee moom lu ma xam Amérique. barke Borom Tuubaa Mbàkke li ma xam Amérique laa diggante Columbus Ohio New Jersey dama lay ñaan dama lay ñaan bàyyi Serigne Touba bi ngay wax per wuy professeur ay italien la lay laaj ascoltami per favore bàyyi li ngay wax yow yow yow yow yow yow Las Vegas asphalt keroog ba fa Modou Gueye héritage demee dama ne kar ma wuyu. taxul nga xam ne ko Modou Gueye héritage lan la mu ne ma maa ngi nii. yaa wax ni Las Vegas yaa wax léegi nii Ndeye Ndiaye toggal leen baxal. yaa wax léegi mu koy lekk ci biir. yaa wax léegi Niger bi waaw waaw waaw. yaa wax léegi Niger bi waaw dama ne. bu la fi ambassade am am am fekkee fii ngay Niger bi. lan la am naa ay mbokk. am naa ay mbokk Niger bi fu mu am. ah New Jersey laa wax. waaw New Jersey laa wax. New Jersey dama ne xam. Diouf waaw mais nag mais nag tonton Prospère tey su ma nee mu yóbbu. mu yóbbu. daa demoon vacances Italie. dama mu naan ay dina la kay italien. mu koy de Géej parce que kii Amérique la wax tonton Pros wax Italie. su ma nee mu yóbbu su ma nee. maa la wax loolu barke borom Tuubaa foo bëgg a dem yow ban état ngay dem état ah ban état ngay dem. nee ko New York ah. laa jëm ban état ngay dem. non Columbus Ohio la samay mbokk. <laughs> waaw fa laa jëm Columbus Ohio ñaata état waaw. 52 xamul kenn ko la 52 Aline Dieng ba Columbus Ohio waa léegi ñaata état moo nekk 52 ñaata état moo am États-Unis <laughs> ah 52 la per naa ne 52 ne ko 52 Ah. Aline Dieng depuis Colombos waa Canada ñëpp maa leen nuyu waa Canada waaw ascolta mi per favore bul toog fenn di wax cinquante deux états moom États-Unis yow li ngay tiitaroo euh, mooy vingt sept ans aux États-Unis ngay tiitaroo oui ma vingt sept ans oui ma oui ma nga ne ñaata état per temps bi temps bi temps bi su ma leen ne temps bi jeex na cinquante états moo nekk foofu voilà merci beaucoup madame Diallo donc donc comme euh, pour revenir rek li nga doon laajte ma wax ne encore une fois mhm. euh, jàpp naa ne ñaari way dencante yi seen sëy gën a metti mooy ñi nga xam ne dañuy dund à distance parce que effectivement bu fekkee ni ko góor ki la stress wut lu mu am parce que dañuy wax ne jom mooy tukki mhm. jom jooju nag su la animé te bari na ñoo xam ne tey jii euh, tukki nañu yegg léegi am kayit léegi lu lu raar la yenn saa yi di nga def ay at mhm. doog régulariser mhm. diggante ngay wut kayit di wut loo am Hmm. wut loo lekk hmm. wut loo naan hmm. te bëgguloo sax njaboot tumuraanke fii nga bàyyi Sénégal moo xam jabar la moo xam yaay la moo xam papa la moo xam frère la c'est extrêmement compliqué waa boobu nag dundee waaw euh, loolu taf yëngal naka taf amoo kay amoo dara waa waaw nooy nooy dundee taf yëngal da ngay nekk dans la clandestinité mais stress stress dugg ci koñ waaw te mën faa dajeeg policier mën na faa daje ku ne. Mm. ñàkk ay këyit rek doy na doy na ci war war laa war a muñal kooku.